def na ci alal yu bare bare bare jëloon na itam ñu xarala ñu mën a liggéey ñoom ñoo ko doon liggéey ku ci nekk di njëkkanteeg moroom ma bëgg koo joŋ ci maa lay gën a rafetub liggéey ku nekk rek ne maay dàq liggéey saa moroom ku nekk rek loo mën ci xereñe def nga ko mu nekkoon nag da ngay dem xool ko bu baax a baax xool rafet rafet ya xool xadd ba xool poto ya xool miir ya mën ngaa fees dell ci sa biir barambat ci la nga fay gis ci xeetu taar bu la ëpp doole mën naa tax daal nga fees dell ba doo xajooti dara dara dara ndax rek la nga gis ci ab rafetaay ak lu lay tiital ci ab taar say boo itam côté boo tollu nga déglu lam lay wax di ko sànni ci say nopp mooy dalay wax ne eh sañ ngaa damoo kat sa mënóorey bàyyi yii maanaam li nga xam ne sa bàyyee ko def kat mën nga cee dam waaye nag bul yem ci damoo ko jéem la def yow itam kat lu mel lañ def baalu ko gën at tamrin attaani haati andil fihral amri min al masadiri al aatiyati wa bayyinta nga leeral naw naw hamsatihi xeetu am saam nga daa bëgg mboolem baat yi mu lay bëgg andil ku ne nga andi ca lamaram ba noppi nag am sa ga ca nekk nga wax ndax am sa xatxu la mbaa am sa waslu la an nasru dimbalee boo ko defee mastar mën naa nekk nag an nasru ndimbal muy nga ñaay waaye lamar moom un suur lay doon te am sa ba waslu lay doon alqoxoodu jekki lamaram uqxodd lay doon te am sa ba waslu la al istixaasatu sàkkoo xettaliku istaxiis mooy doon lamar la am sa ba nekk waslu al iqbaalu ak dëgmal lamar ja mooy aqbil am sa am sa ga nekk xattu al nashru wesaare nashara mooy final bi un shuru wesaareel mooy lamaram am sa ga nekk waslu ashur bu naan ishrab naanal am sa ga nekk waslu al xuruju génn uxruj am sa ba nekk waslu al mashyu dox imshi am sa ba nekk waslu al ibt al ibtihaaju bég ibtahij am sa ga nekk waslu al dhahaabu dem idhab demal am sa ga nekk waslu al islaamu ak wommatu wala ak jébbalu wala ak jébbale aslim mooy lamar ba am sa ga nekk xatoxon al isfiraaru ak gel isfirra na nga gel lay doon wala isfarir ci nekk mën na koo doon am sa bos lay doon albaxsu gëstu ibaxas lay doon am sa ba nekk waslu an naqlu toxal unqul am sa ba nekk waslu al inxitaafu ak wëlbatiku mel ne virage wiire maanaam inxatif lay doon am sa ba nekk waslu al ishaadu ak texeel ashada ci lay bàyyi ko ashid mooy lamar ji am sa ba nekk xaton al ijtimaahu ijtamaa mooy fihil maadin bi ijtamia dajeel am sa ba nekk waslu an nazaru xool unzur am sa ba nekk waslu al juluusu jekki ijlis am sa ba nekk waslu al istikaanatu ak toroxlu istakin am sa ba nekk waslu al ikraamu teral ak rim am sa ba nekk xatu al rafu yëkkati irfan am sa ba nekk waslu al iqdaamu ak song wala ñeme jëm kanam aqdim am sa ba nekk xatu al quxuudu jekki uquxud xam di ko baam bu fekkee ne juumu ci njëkko naa wax li al quxuudu te kon andiwaat na ko bu doon alxuquudu kenn ki fas nag alxuquudu xëy ngi jiitu kon inqid fasal am sa ba nekk waslu al ihtiraamu ormal ihtarim am sa ba nekk waslu at tamrin at taalis haati andil al fixla fixal ba al maadiya bay maad min al masatiri ci mastar yi al aatiyati aji dikk wa bayyinta nga leeral nawha hamsatihi façon am saam nga maanaam xeetu am saam nga maha dikri asbaabi ànd ak tudd sabab ya day bëgg indi ay mastar yoo xam daa bëgg ku ne nga delloo si fixlul maadin ma te am sa ba ca nekk nga wax ba xam dafa nekk am sa waslu am dafa nekk xatuxu te boo nee waslu la nga wax lu tax boo nee xatuxu la nga wax lu tax al istiqsaawu ak sorilu maanaam dem dayoo fihil maadin ba day nekk istaqsa al irtihaal ak laxas fihal ba day nekk ca bu dee maadi irtahala al insaafu ak maandu daa bàyyi ko ci an safa muy rubaax yo al imtihaan ak nattu moom imtahana mooy fi'al ba al istihaalatu ak jomb istahaala lay doon al intifaa ak jariñu intafaa lay doon al ixibaaru xibaar ga kooku moom daa bàyyi ko ci rubaax yu axbara ixbaaran al istinkaaru ak fakk wala ak ñaawlu daa bàyyi ko ci istankara al ihyaaw dundal daa bàyyi ko ci ahyaa kooku ci rubaax yi masalu rubaax yi la moom al ihyaaw daal al ibtikaaru ak fent daa bàyyi ko ci ibtakara at tamrin arabia haati andil masaadiral afxaali mastari fixaaliya al aatiyati aj dikk wa bàyyinte nga leeral nawxa xamsatiha xeetu am saam nga maha dikril asbaabi fii moom dañ di ay fixal mu bëgg nag kenn ku ne nga indi masdaram te am sa ga nekk ca njëlbeen ga ca masdar ma nga wax waslu la wala xatxu la boo ne waslu la lu tax nga wax ko boo ne xatxu la lu tax nga wax ko ir tabaa gërëm na ir tibaa an mooy masdar ma mel na nga ne al ir tibaa u istaxfara sàkku na njëggal istighfaaran mooy masdaram abdaha fent na mbaa dikki na kiimaan moom day rubaax yu ibdaahan lay doon intaqala toxu na intiqaalan ahsara boobu wala boo ko defee ahdara teewal na boo ko defee ahsara jubli ci gaw nag kon muy ihsaaran boo defee ahdara nag muy ihdaaran kooku day rubaax yu nga xool nag التمرين الخامس دفكو الفعل لموي فعل اللازم بأجي اللازم والفعل أك فعل المتحدي بأجي جاغتي فعل بي لازم موي فعل بو خامني خاو خاو بو دو ген كوكو ديف دو ام مفعول به الفعل المتحدي نك موي فعل بو خامني خاو خاو بو فاو مو ген كوكو ديف جال ci keneen al amsilatu kon lii mooy misaal yi tafattaxa fett na azzahru tóor tóor ba tóor tóor bi moo fett néewuñu fett nañ ko taara jeqiku na alxubaaru pënd ba dañ ne pënd bi jeqiku na waaye néewuñu jeqi nañu pënd bi faada baawaan na an nahru dex gi dañ ne dex gi baawaan na waaye néewuñu baawaanal nañ dex gi xabat upp na arriixu ngelaw la dañ ne ngelaw li upp na waaye néewunu upploo nañ ngelaw li boo xoolee fee nag ci càmmooñ tawaa lem na alxaadimu mbindaan mi ak taw ba malaan ma maanaam mbindaan mi lem na yére ba akala lekk na ak faala bu kund ga dajaa jatan ganaar balla la tooyal na almataru taw ba al arda suuf sa axraqat lakk na annaaru sawara wa almanazila kariya albaas jamiihul jumali mboolem jumla yi fil xismi ci xaaj bi al awali bi aji jëkk murakkabatun lu ñu toggalee lañu min fi'lin ci fi'al wa faaxilin ak faaxil laa xayru du leneen wa jamiihuhaa te mboole seen fil xismi ci xaaj ba astaani bi aji ñaareel murakkabatun lu ñu composé lañu min fi'lin ci fi'al wa faaxilin ak faaxil wa maf'ulin bihi ak maf'ulin bihi walaw xaawala doonte jéemoon na doonte sàkk woon na insaanu nit an yudifa mu dolli ila kulli jumlatin jëm ci bépp jumla min jumalil qismi ci jumlay xaaj ba al awali bi aji jëkk mafxoolan bihi mafxoolan bihi xataa tasira ba mujj al jumalu jumla ya fil qismayni ci ñaari xaaj yi mutashaabihatan di aji muroo la wajada kon mu fekk ne anna dalika naka loolee xawru mustataaxin du lu ñu man li anal afxaala ngir naka fihaal ya fil qismi ca xaaj ba al awali bi aji jëkk qaasiratun aji gàtt maanaa lañu laa yataxaddaa du jéggi xamaluhaa seen jëf rafxal faaxili rafaa faaxil ilaa nasbil mafooli bihi jëm ci nasab mafoolum bihi wali taalik ngir loolu tusamma def na leen tudde afxaalan ay fihaal xaasiratun yu aji gàtt maanaa aw laasimatan wala yu aji laasim maanaam di aji taqoog aji jëf ja dana boo xoolee ci ndeyjoor mboolem jumla ya fa nekk jumla bu ca ne dañ faa boole rek fexal ak faaxil waaye leneen yokkuwu ca ci boo xoolee ci ndeyjoor te nag boo xoolee ci càmmoñ moom gis ne jumla bu ca ne dañ faa boole fexal ak faaxil ak mafoolum bi muy nag boo doon jéem fexe ba jumla yi ci ndeyjoor mel yi ci càmmoñ am mafoolu bi ni ko yi ci càmmoñ amee boo ko doon jéemit doo ko man ndax fi xel yi ci ndeyjoor kenn ku ci ne xew-xew ba daa mënta génn ka ko def loolu moo tax dañuy jàpp ne bépp fi xel boo xam daa mel ne ñoom xew-xew bu mënta génn ka ko def rek dafa gàtt maanaa dafa laasim mooy xew-xew ba génnul ka ko def kon du am mafoolum bi te nag boo xoolee ci càmmoñ moom moom lay bëgg a wax fexal ba ci ñoom ñëpp boo ci xool rek xew-xew bu faaw mu génn ko ko def jàll ci keneen muy amma af xaalul xismi daal fexali xaaj ba atsaani bi aji ñaareel fa lay sa déet ñoom xaasirata ñuy aji gàtt maanaa li ànd xamalaxaa ngir na ko seen jëf yataxaddaa dana jéggi rafxal faaxil rafaa faaxil ila nasbil maf'ul bihi jëm ci nasab maf'ulum bihi wali dalik ngir loolu tusamma def na leen tudde af'alan ay fihal mutahaddiyatan yi aji jàggate dana fihal yi nekk ci ligne bi càmmoñ moom koo ci xool rek xew-xew ba génn ko ko def jàll ci keneen tamit maf'ulum bihi ndax boo nee tawaa lem na du ñàkk ku lem ak la mu lem boo nee akala lekk na du ñàkk ku lekk ak la mu lekk boo nee balla la tooyal na du ñàkk ku tooyal ak lam tooyal boo nee axraqat lakk na ñàkkut lu lakk ak la mu lakk nga xam ne ka def xew-xew ba mooy faaxil xew-xew ba jàll nag ca keneen muy ma foolum bi loolu moo tax nag leen di wooye fixal yi aji jàggati maanaam fixal yoo xam ne seen maanaa jéggi na ko ko def jàll ci keneen mbaa leneen alqawaidu lii mooy takk-takk yi al fixlu fixal yanqasimu dana séddalikoo xismay ni ñaari xaaj wala xismay ni mbir mu muy ñaari xaaj laasimun mooy laasim wa mutaxaddin ak aj jàggate leneen xib al fixlu fixal al laasimu bi laasim huwa moom maa mooy ba nga xam ne laa yansibu du nasab al mafoola bihi mafoolum bihi wal fixlu fixal ba al mutaxaddi bay aj jàggati huwa moom allësi mooy ba nga xam ne yan sibuhoo dana ko nasab kon booy gàttal da nga wax ne fixal ñaari xaaj la fixal buy laasim ak buy jàggati fixal buy laasim mooy fixal boo xam ne mënta am mafoolum bihi ndax xew-xew ba du génn ka ko def fixal buy jàggati mooy boo xam ne day am mafoolum bihi ndax xew-xew ba day génn ka ko def jàll ca keneen mbaa leneen aqsaamul mutaaddi lii mooy xaaji aji jàggate bu jëkkee al amsilatu misaal ya zaraha bay na al fallaahu baykat bi al qasaba gattaxu suukar atfaa fay na al hawaau air bi wala ngelaw li al misbaaha làmp ba ngelaw li moo fay làmp bi bi nga njëkk a wax mooy baykat bi dafa bay gattaxu suukar tasuuqu dana màng mbaa dana jiital arriixu ngelaw la assaxaaba niir ya yarkabu dana war al farisu gawar ba al jawaada naaru góor wa yahudu dana seeti at tabibu médecin ba al marida aji tawat ja yastajibu dana wuyu ba dana nangu allahu yàlla adduha ñaan nga fee nag moom muy donantu jort naa aljawwa jaww ja moo tadi lan muy aji yemoo maanaam modéré bañ a tàng bopp bañ a sedd bopp nekk ci digg bi jort naa ne jaww ji noonu la mel raaytu gis naa assulha yewenoonte xayran muy gën yewenoonte moo gën xëccoo ko xuloo ko xeex wajattu fekk naa alfaraaxa féex ci ab liggéey maanaam loxoy kese rek mafsadatu muy sababu yàqu-yàqu ñàkk def dara ak yàq lay indi ataytu jox naa assaa'ila aji laaj ja xubsan mburu ki doon yalwaan jox naa ko mburu yekk soo dana sàng alxilmu xam-xam ahlahoo ñoñam waqaaran ak wegu xam-xam day jox ña xam ak wegu mooy ñu fonk leen màggal leen yasqi dana nàndal at tabibu médecin bi al marida malade ba ad dawaa garab ga médecin bi mi ngi jox malade bi garab muy naan sa uri xalsat na ma wan xàlli yan xàlli yu alkitaaba téere ba mu fii dan muy aji am njariñ danaa wan àlli yu téere ba na mu amee njariñ alamtu xamal naa ak tuwaata way bew ya ak zulma tooñ nga wax yi man muy aji bon xamal naa ñi bew ñi tooñ ak mbewte ni mu bonee am ba ani xibaar na ma ar rasulu ndaw la al amira buur ba xaadiman muy aji dikk ndaw li xamal na ma xibaar na ma ne buur bi ñëw na nabbatuhum xibaar naa leen al kibra rëy mam xootan muy lu ñu sànje muy lu ñu bañ lool lool axbartu xibaar naa al xilmaana xale ya wala fere ya allah iba po poma mu fii leen muy aji am njariñ xamal naa gone yi na foma amee njariñ xabartu xibaar naa al musaafiriina way tukki ña al xitaara train ba mutaaxiran muy aji tardé wax naa way tukki ñi xibaar leen ne train bi saxaag dafa tardé xaddastu nettali naa al awlaada gone ya asibaxata féey ga naafixatan muy aji jariñ gone yi nettli naa leen féey nam amee njariñ albaas jamihul afxaali mboolem fixal yi fil amsilati ci misaal yi assaabiqati aji jiitu mutaxaddiyatun aji jàggati lañu li anna kulla waahidin ngir naka kenn ku ne min haa ci ñoom yam si bu dana nasab al mafxoola bihi mafoolum bihi xayra anna ndare naka nun ida waazanna ndem comparé nanu baynal afhaali diggante fihal ya fil aqsaami ca xaaj ya al thalaasati ya di yet al mutaqaddimati aji jiitu wajat naaxaa nu fekk leen fil xismi ca xaaj ba al awali bi aji jëkk naa sibatan ñi aji nasab mafxoolan bihi mafxoolum bihi waaxidan mu di menn wa fil xismi daanu leen fekk ca xaaj ba alsaani bi aj ñaareel naa sibatan ñi aji nasab mafxoolayn yaari mafxool isnayn yu di yaar wa fil xismi daanu leen fekk ca xaaj ba alsaalis bi aj ñetteel naa sibatan ñi aji nasab mafaaxi la ay mafxool salaasat yu di yett nee na boo xoolee misaal yi weesu da nga gis ne fexle yi ca nekk ñoom ñëpp dañuy jàggati ndax fixal bu ca ne day na sob mafhul waaye nag doo dee xool liñ ba ca ndeyjoor ak liñ ba ca càmmooñ ak xaaj bi féeti suuf muy ñetti xaaj boo dee seet fixal yi ca nekk nga di leen seet ba xam comparé leen ba xam lu ñu defante seen diggante da nga gis ne wuute nañu ndax boo xoolee ci ndeyjoor ca xaaj bu njëkk ba mboolem fexal ya fa nekk benn mafhum la ñuy am boo xoolee ci càmmooñ ca xaaj ba ca kaw ci càmmooñ da nga gis ne mboolem fexal ya fa nekk yépp dañuy nasab yaari mafhum boo xoolee nag boo xoolee nag xaaj bi ci suuf muy xaaj ñetteel bi gis ne mboolem fixal ya fa nekk benn bu ci ne day na sab yetti ma fool naaw du danañ dellu maratan aw yoon saaniyatan wu ñaareel ilaa baxsil mafoolayni jëm ci gëstu yaari mafool ya fil xismi ca xaaj ba asaani bi aji ñaareel fa najul dani fekk ne annahuma naka ñoom ñaar taaratan léeg-léeg yasixu dana wér al ixbaaru xabare bi saanihima ci aji ñaareel ca ñoom ñaar xan awwalihima walis aji jëkk ca ñoom ñaar law joxe laa doonte defe foon na leen mubtada an ñuy mubtada wa xabaran ak xabar kama fil amsilati ni mu nekk ci misaal ya al thalaasati ya di yet al ula ya di way jëkk wa taaratan léeg-léeg laa yasixu du wër fihima ci ñoom ñaar daalika loolee kama fil amsilati ni mu nekk ci misaal ya al thalaasati ya di yet al axirati aji mujj min haadal qismi ci bile xaaj daa wax ne nag nan delluwaat xoolaat fi xel yi nga wax ne ñoo nekk ca xaaju ñaareel ba maanaam liñ ba càmmooñ ca kaw te ñu wax ne dañuy nasab kenn ku ci ne yaari ma fool da nga gis ne léeg-léeg yaari ma fool ya soo leen delloo woon ci mubtara xabar ñu mën koo doon jub xocc mel ne yettee ca kaw moom yettee jëkk ci liñ boobu ca càmmooñ ku ci ne yaari ma fool ya mu nasab boo ko delloo woon ci mubtada xabar man koo doon dara du ci sikk te nag léeg-léeg boo xoolee yaari mafool ya duñ mën a dellu ci mubtada xabar mel ne xaaj boobu nga wax léegi muy liñ bi féete càmmooñ yett ya féete suuf boo ko seetoon seen yaari mafool ci kenn ku ci ne mënta dellu ci mubtada xabar mel ne boo wëlbatee xool zonantu aljawwa mu'tadilan moom boo dagoon zonantu man ne aljawwu mu'tadilun muy mubtada xabar fee itam ra'aytu sulha xayran boo dagoon ra'aytu as-sulhu xayrun mën a dellu ci mubtada xabar wajadtu alvaraaqa mafsadatan boo dagoon wajadtu man ne alvaraaxu mafsadatun waaye na yett ci suuf moom yett ci topp moom axtaytu boo ne woon asailu xubusun moom du jub ba tey yekk soo alxilmu boo daggoon yekk soo alxilmu ahluhu waqaarun képp du jub fa itam yasqi ab tabibu boo ne woon almaridu addawaawu bëgg ko def mutudaa xabar yett yi moom benn du ci jub ci nga def ko nga def yaari ma foole muy mutudaa xabar kon nag wa min zalika ngir loolu kaanat nekk na al afaalu fihal ya allati ya nga xam ne tànn si bu danañu nasab mafhoolay ni yaari mafhool xalaa naw xay ni di nekk ci ñaari xeet al awalu xeet xeet bu njëkk bi al afaalu mooy fihal ya allati ya nga xam ne tànn si bu danañu nasab mafhoolay ni yaari mafhool kaanaa yoo xam nekkoon nañu fil asli ci cosaan mubtala an di mubtala wa xabaran ak xabar ka zanna niki zanna waraa ak raa ak taani ñaareel bi al afxaalu mooy fi xal ya allati ya nga xam ne tànn si bu danañu nasab mafxoolay ni yaari mafxool yoo xam ne lam yëkkul nekkutoon asluhuma seen cosaan mubtada an di mubtala wa xabaran ak xabar ka axtaa niki axtaa joxe na wa kasaa ak kasaa sàng na kon ngay wax ne fi xal yi nasab yaari mafool ñaari xeet lañu am na ci xeet boo xam ne yaari mafool ya muy nasab ca cosaan dañoo nekkoon mubtada xabar ni ki zannaag raa xeet boobu lañ bokk am nag xeet boo xam ne moom yaari mafool yi boo ko dee seet duñ mën a dellu ci mubtada xabar ndax ci cosaan doonuñu ko woon mel ne axta bu amee yaari mafool ak kasaa sàng na bu ko amee alqaidatu kon takk-takk baa ngi nii yan xasimu dana séddalikoo alfihlu fihal ba almutahaddi bay aji jàggati arbaxata aqsaamin ñeenti xaaj al awal xaaj bi njëkk bi maa mooy la nga xam ne yan si bu dana nasab mafxoolan bihi mafxoolan bihi waaxidan mu di menn ak taani ñaareel bi maa mooy xaaj ba nga xam ne yan si bu dana nasab maf'ulayn yaari maf'ul asluhuma yu seen cosaan mubtadaun mubtada la wa xabarun ak xabar waxoo moom nag zanna mooy zanna jort na wa xasiba ak xasiba jort na wa xaala ak xaala jort na wa zahama ak zahama jort na wa jaxala ak jaxala def na ci kaw njort wa xadda ak xadda bi firi jort na wa xajaa ak xajaa bi firi jort na wa xëb ak xëb jortal bu ko tëg xëpp mayal ci prix wa jamihuha mboole seen tufiidu danañu jëriñ ma daañu tegtale a shakka sikki sàkka maxa may lin ànd ak jeng la rucc xaani jëm ci ak lëng day wane ne am na xaaj boo xam ne ci yi jàggati dañu am benn ma fool ni nga ko gisee ci gannaaw am na nag xaaj boo xam ne day na sab yaari mafool yoo xam ne seen cosaan mubtada xabar la woon kooku nag war nga koo takk mu ne la li tàmbalee zan na jort na ba ci xëb jortal yépp loolu la ñuy def boo dee xool seen maanaa nag dañuy firi jort maanaam amuñu wóolu ca loola waaye ak lëng da caa am maanaam dañoo jàpp ne jort nañu te njort foo ko fekk lañ jort moo gën a dëgër lañ jortut xam ne bu fekkee kooku amutu wóol itam daal am na njort te la mu jort moo gën a dëgër la mu jortut xam ne gee moo gën a dëgër ga ca des nga tekki nag waraa ak raa bi firi gis na gisu xam wa xalima ak xalima xam na wa wajada ak wajada fekk na wa alfa ak alfa fekk na wa daraa ak daraa xam na wa taxallam nga koy def wa taxallam ak taxallam bii firi xamal day am day am maanaam i'lam wa tufiidu ñoom dañuy def wa tufiidu danañu tegtale al yaqiin ak wóolu raa xalima wajada alfa dara taxallam moom ñoo yee nga weesu ñoo bokk ci am yaari mafool yoo xam seen cosaan mubtada xabar la woon waaye ñoom dañuy tegtale ak wóolu moom wa radd ak radd bi firi delloo na mbaa mujjal na wa taraka ak taraka bàyyi na mbaa mujjal na nga wax mujjal na mu gën a yow mu ci yow wa taxisa mën na taxisa ci sulaasi bi muy jàpp na mbaa mujjal na ak wa taxasa jàpp na mbaa mujjal na wa jaxala ak jaxala mujjal na wa waxaba ak waxaba mujjal na nga xam ne moog waxaba maye na ñoo bokk ab yax waaye ci pirim la ñu wutee wa haasihi tufiidu dañuy jëriñ dañuy tegtale taxawil la shay wëlbati dara min xaalin bàyyikoo ci am mbir ilaa xaalin jëm ci meneen mbir yi dañuy firi mujjal maa loola njëre ko ci lam nekkoon yóbbu ko ci leneen wax nga ñaar ak taalisu ñetteel bi maa mooy la nga xam ne yanu si bu dana nasab mafon lay ni yaari mafool lay sa asluhuma yoo xam ne te seen cosaan mubtala andi mubtala wa xabaran ak xabar waxu moom nag kasirun aji bari la wa minhu bokk na ca ata ata bii firi joxe na wa saala ak saala bii firi laaj na wa kasa ak kasa bii firi wodd na sàng na xaaj ñetteel bi mooy fixal yi nga xam ne daañu am yaari mafool waaye yaari mafool yi seen cosaan bu woon mubtada xabar te boo ko ci bëggee delloo du ko mën yooyu nag bari nañu ata ci la bokk saala ci la bokk kasa noonu arrabihu nag xaaj ñeenteel bi maa mooy la nga xam ne yann si bu dana nasab salaasata mafaax yi la yetti ma fool waxoo moom nag ara mooy ara bii firi wane na wa alama ak alama bii firi xamal na wa am ba ak am ba bii firi xibaar na wa nabba ak nabba bii firi xibaar na wa axbara ak axbara bii firi xibaar na wa xabbara ak xabbara bii firi xibaar na wa xaddasa ak xaddasa bii firi xibaar na mbaa netti na benn lañ dafa am xaaj boo xam taxulee na bare noonu waaye ñoom dañu nasab yetti ma fool moom la wàññi fi xal yu tàmbalee ci ara wane na ba ci xaddasa xibaar na taadiyatul fi'ali lii mooy jàggatiloo fixal bil hamsi ci boo ci defee am sa wa tadxiifi akuk ful fixal boo ci yokkee am sa mbaa araxu ci digg ba nga sàdd ko mooy ful gi mu wax dana ko taxa jàggate mu njëkke al am silatu li moo di misaal yi xaraja génn na ar rajulu waaja boo xoolee ca kanam axarajutu génne naa ar rajula waaja bi ci topp jalasa toog na azairu aji siyaare ja aji lastu dij naa maanaam toogal naa azaira aji siyaare ja bi ci topp baaxa sànku na mel ni réer na alkitaabu téere ba man nga ne abaatu réeral naa maanaam sànk naa alkitaaba téere ba farixa bég na alwaladu xale ba bil jaaistati ca prix ba wala neexal ba man nga koo def farraxtu bégal naa alwalada xale ba bil jaaistati ca prix ba wala ca neexal ba sahulat yomb